jërë ngeen jëf mbokk xewal gi TV ñu ngi fii ci daara Oustaz Malick Ba nekk fii ci quartier. Euh, Médina waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi sant borom bi tabaaraka taala di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu yéen waa xewal gi fii ci daara El Hadj Ndiaye man la Oustaz El Hadj Ba. Euh, di jàngale fii ci daara Alaaji Baabu Ndiaye quartier midina en même temps euh, am fi tamit ay at yu takk yoo xamante ni yàlla dimbale na ma suturaal ma boobu léegi maa ngi fi di ci di fi jàngale alquran ak diina di ci yar doomi jàmbur yi doomi doomi julit yi euh, laaj bi nga laaj nag ci corona bi nga xam ne yàlla dogal na dafa lëmbee àddina dafa nekk feebar boo xamee ne maanaam ku nekk xam na ku nekk dund na ko feebar bi ndax feebar dafa lëmbee àddina mu mel ni nag ñun bi nga xamee ne feebar bi euh, dugg na Sénégal euh, depuis le de mars ba ñu commencé di dem di dem di dem ba di soox di soox ba le 15 mars ci la ñu arrêté suñu liggéey fii euh, ñëwatuñ fi di jàngale ñëwatuñ fii di yar ay doomi ñu julli di xanaa dañ daan ñëw rek di taa di toog fii di waxtaan mm-hmm. man ak ñeneen ñoo xam ne dañ fi daje waaye du ma nangu sax xale jege fii ñoom ñoo gënoon a bañ sax jamono yooyu euh, njàng mi mu mel ni bon feebar ba mu duggee euh, réew mi ba léegi euh, ñun jafe-jafe yi ñu ci am moo di ne rek li nga xam te ne ni moom lañ doon dund dundatuñ ko mooy lan daje rek daje rek daje rek tànk yi di leen di leen jàngal di leen di leen yar di leen jubbanti am ci ñoom cofeel bugg ëllëg ñu nekk ay nit ñoo xam ne nii nit njaay la ñuy doon nit ñu jullite nit ñu topp yàlla nit ñu bëgg yàlla nit ñu nit ñu nit ñu bëgg seen réew loolu nag ci diir ak ñaari weer yi ñàkk nañ ko mu nekk lu lu métti ci ñun waaw mu mu nekk lu métti ci ñun bu dee ci côté diine moom loolu moom métti nañu lool ngir suñu su doon suñu sago dañuy nekk ak ñoom di leen yaat di leen jubbanti pour ñu teg leen ci yoonu siraatul mustaqim ndax ñun lu mooy suñ liggéey fanweeri at ak juróom benn yoo xam ne maa ngi fii loolu daf nekk na ay at yu takk yoo xam te ni ci loolu moom kii na euh, moom bokk na ci li nga xam ne dund nañ ko bu baax a baax a baax a baax bu dee ci wàllu jafe-jafe ci côté euh, côté koom mm-hmm. moom it dund nañ ci jafe-jafe dund ci jafe ndax jafe-jafe yi moo di ne euh, dañ doon am suñ tuut fii ci daara ji di ko yóbbu ci kër ga mm-hmm. mais yàlla dogal loolu dakk mm-hmm. ba mu dakkee it gisuñ beneen bunt bu ubbeeku bu dul xanaa suñ borom tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind jaamam di ko di ko euh, garanti ko ne maa lay maa lay dundal maa lay jox looy looy loo loo loo looy looy looy looy loolu moom loolu moom ci loolu lañ ci loolu lañ jàpp ba ba ba nëgëni mm. waaw nga gis ne président defoon na benn déclaration. Mm. démb tamit defoon na beneen déclaration. Mm. ni daara yi ñoom bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoo war a dem daara ba tey xale yi. Mm. tout tànk yi duñu jàngi ndax yéen am ngeen ci élèves yu mag yoo xam ne ñoo xam ne war nañu mën a ñëw def seen examen. comme ni nga ko daan defee at bu jot. waa xam nga ñun moom ñun daara daara. ñun waa daara. Mm-hmm. Euh, daara moo fi jiitu lépp lu fi ne. Mm-hmm. lépp luñ fi jàng rek daara fi jiitu. Mm-hmm. waaye daara dafa nekk loo xam ne nii ba loola ñëwee daf ko randal ne ko jógal fële maanaam demal toog randul ne le ñun ñooy placé loolu moom depuis indépendance ba léegi ci loolu la ñuy dund ba tax na lu ñuy lu ñuy kii dañ ci dañ ci dañ ci boole daara daara moom apprenti la rek moom ginnaaw lay féetee rek ba tax na moom euh, li ñu ne danañ ubbi euh, daara yi école yi ci beneen côté euh, maanaam boolewuñ ci daara yi ñun ñooñu bu ñu ubbee rek ñu topp seen ginnaaw rek ñun daal ab yambar lañ ci ginnaaw ci gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw nitu tubaab nitu nguur yi mooy li nga xam ne moom mooy mooy mooy la ñu loolu la ñuy dund ñoom saa ubbee rek bu ñu bu ñu bu ñu gisee ñoom ubbi nañ rek ñun mën nañu ubbi mhm. waaw waaye instant yi moom duñ mën a duñ mën a ubbi nit ñaa ñu koy laaj man may ñëw rek am na ma saa da ngay dem daara ma leen waaw dama dafa am dafa am soxla rek waaye ubbeeguñ ubbi moom jotagul ndax mhm. dañuy xaar ba nga xam ne ni état bi ubbi na ba pare après ñu doog a joxe ndigal ñu doog a ubbi mhm. waaye bu dul loolu moom ñun duñu ubbi mhm. waaw loolu moom duñu ubbi te ngir ngir feebar bi dafa am dafa nekk feebar boo xam te mhm. maanaam euh, dafa lëmbee àddina comme ni ñu ko waxee kuy jullit ku ne rek da xam àq bi nga xam ne moom la feebar bi laaj waaw feebar bi lim laaj mooy bañ a jaxasoo bañ a dend bañ a bañ a kii pour bu mu law comme ni ni information bi mu ñëwee ni mu ñëwee ci ñun aussi tamit gëm nañ ne feebar bi am na waaw ñun bokkuñ ci ñu wax ne feebar bi amul mhm. kon feebar bi am na euh, ak nu manti mel rek feebar bi am na comme dajaloo lay laaj mhm. moo tax ñu tamit ñu mooy tudd dajaloo rek waaw moo tax duñu ubbeegum léegi daal nga gis ba tey ci biir déclaration bi mhm. jumaa yeeg jàkk yi dañ leen tëjoon te fu mu ni nii bàyyi nañ leen ñuy julli léegi yéen lool nan ngeen koy dundee waaw xam nga tamit euh, jumaa yi moom euh, ca départ ba xam nga feebar bi président de la république Macky Sall. ñu ngi koy sant di ko gërëm. ndax mooy suñu njiit mooy njiitu Sénégal. Euh, alaakulli biir feebar bi amee moom dafa dafa dafa dafa def loo xam ne. Euh, loolu la lislaam santaane. mooy lan mooy dafa ña njëkk a feebar euh, siin. di fukki étudiant ak ñett. ñoo xamante ni ni ñooñu foofu lañ foofu la leen fekk. ñu buggoon mu ñëw ñëwuñu. mu ne duñ ñëw. ndax wóorul loolu loolu moom lislaam moo ko santaane. am nañ ci doon ñu weerante sax waaye lislaam moo santaane euh, su mbas amee ci ab dëkk wala si réew bu fa kenn dem bu bu fa kenn jógee ko kon loolu bu ñu jëfee woon lislaam rek ni kon tey feebar bi du law lool aussi tamit xëy na nag euh, lislaam moom comme ni ñu ko waxee rek dañ ko desal gannaaw lu bari am na ñu koy appliqué mais am na ñoo xam ne nii wuñ ko euh, quand même jumaa yi bi nga xamee ne ñun boo bi ñu arrêté bi ñu bi ñu bi ñuy arrêté suñu njàngale le 15 mars ñu dem ba jumaa ji ci tegu defe naa ci lañ wax ne kon jumaa sax amatul juma ndax dajaloo bi wóorul loolu tamit nekk lu tiis loo xamante ni nii lu lu lu amoon jafe-jafe la bi maanaam jafe-jafe bi mooy ñi ñu mag amul kenn koo xamante ni nii fàttaliku na foo xamante nañu wax ne jumaa tey àddina si wala réew mi wala dëkk bi kenn julliwul jumaa kon loolu loolu loolu lu lu lu ñu lu ñu tiitaloon la waaye nag ñu xam ne yàlla moo ko moo ko moo moo dogal feebar bi ñëw ala kulli alin julli jumaa boobu léegi nag euh, mu mel ni nag ñàkk julli jumaa googu tamit euh, l'islam ba dafa bëri ay pexe dafa bëri ay yoon yoo xam ne moom bëgg na jullit bi di yeewu gis nga bañ ne bañ ne nit ki bul julli juma mais mën nga julli mën nga julli ci sa kër mm-hmm. man sama kër ba ma ba nga xamee ne jumaa ju njëkk jooju fekk naa sama njaboot yëpp mm-hmm. ma arrêté ma ma ma digal leen ne leen lal leen basan yi len leen ñu lal basan yi bokk julli tisbaar ñeenti rakk mm-hmm. loolu njàngale la boo xam te am ñoo xam ni nii mën nañ def nañ ko am ñoo xam defuñ ko dañ bàyyi xale yi bërngal leen rek di jànguñu mais euh, julli julliwuñ tisbar ñeenti rakk ndax amuñ droit julli ñaari rakk ndax loolu juma dafa am ay sarta ay ko ay sàrt yoo xam ne nii ay conditions yoo xam ne mooy daje mhm. ñi ñu mën a julli jumaa waaye bu dul loolu mhm. kenn warta kenn maanaam jumaa yooyu sàrt yooyu bu dajewu rek jumaa du mën a du mën a mën a taxaw mhm. kooku de benn détail la boo xam ne buñ ci duggoon dafay jël suñu temps waaye pour jumaa ak tisbaar dafa wute léegi tisbaar jooju nag ñu mbokk ko julli loolu nekk loo xamante ni xëy na euh, boobu ba léegi nag ñun ñu ngi ci moo mu ñi koy dund te di leen dajale ñuy bokk di di di di di jàpp di jàpp di jàpp di jullee ndoor di di tisbat, di jullendoor takusan, di jullendoor timis di jullendoor ge, mhm. loolu yàlla dogal na man sama njaboot noonu laay dundee ak ñoom alaakulli yàlla bi ñu toogee nag ba nga xam ne léegi ñu ne léegi dañ koy ubbiwaat mais loolu ba léegi man de li ma jàpp mooy li ma jàpp mën nanu mën mën mën mën ubbi jumaa mais comme ba du ci nañ doon ah di fa dem di julli waaw loolu moom pour man man sama gis-gis wóorul bu nit ñi di dem di fa dem di di dem di julli ji ñenn nag ñi nga xam ne ñoom am nañ man am nañ volant bon volant maanaam bugg nañ bugg nañu di dem julli ji bu la neexee mën nañu dem julli ji mais ñëpp mënuñu julli nañ doon dem di jullee ni mënuñ ko jullee wa illaa dafay nekk loo xam ne nii euh, distance bi ñu wax ne moom la ñuy moom la ñuy wax euh, da dafay dafay dafay yaatu bu mu ëpp julli gi daal daa dina am ñoo man li ma gisee mooy am na ñu mën a dem mais am na ñoo xam ne mën nañu rester seen kër julli seen julli seen tisbaar ba ba ba feebar bi jóg. sensibilisation ngay jox askan wi pour bu ñu dajee ci jumaa yi. waaw xam nga bañ kii rek li ñu doon dund rek li ñu doon dund rek masque yi nañ ko yóbbaale. Mhm. nañ ko nañ ko nañ ko sol. Mhm. waaw kuy génn na nga óot masque. masque boo xam te ne da nga xam na ne bii moom. mën nga ko jullee ba ba ba julli gi pare. te doo ko simmi. Mhm. te du simmeeku plus tamit bañ a joxe loxo. joxe loxo ñoo ñàkk joxe loxo boobu. Euh, moom moom mën nañ ko wéyal. mën a bañ a dend bi tamit ba léegi tam mën nañ ko wéyal waaw bu boobaa rek dañuy ne dañuy dañuy dañuy mucc ci ci feebar bi waaw jërëjëf oustaz ñu ngi lay jaajëfal mm-hmm. Xeweul bi ñu ngi lay jaajëfal lii lañ leen indiloo woon ci seen uh, daara fii Hadj Babou Ndiaye fii fekkoon fi oustaz Ba oustaz Malick Ba mm-hmm. ñu koy jaajëfal Xeweul bi ñu ngi lay jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon